dafa toll woon ci di wax yi sabab mujj gu ñaaw mu boole woon ci dugg ci mbir yi wàll yi di ca wax loo ci war ta wax mu far ca sësale woon nag wax mbir yi wàll yi ba xaw caa sori mu ne kon nag nan delluwaat waxal la yi nga xam ne mooy sabab mujj gu ñaaw ndax nga xam ko ba man koo moytu bokk na ci sabab mujj gu ñaaw wooteeg wilaaya te du dëgg mbaa ñu ko koy wooteel muy nangu te xam na ne du dëgg walla muy feeñal ay yëf wax ne ay karaama la ay xar baax la yu ko yàlla may te fekk na doonu ko daa bëgg rekk nit ñi màggal ko mbaa jox ko seen alal rekk yooyu yëpp day waral mujj gu ñaaw ne mane ne ku bëgg a defaru am mbir mu jub teeg ëllëg fi xeel ba dem ci nit yàlla ya dëgg dëgg dëgg te bul gaawantu day dem ci koo xam ne da koy nuru te doonu ko ndax nee na jamono jëm doon taalifi kat bari woon nañu doon woote ak juriñ te ñi ci ëpp ay fiiri àdduna lañu fu xoox ju wax jam xu faxin la alfaxu mooy firi ak fiir maanaam sëriñ soosu dañoo tuddoo ay sëriñ rekk ngir bëgg am àdduna waaye yàlla rekk taxu leen a jóg dafa wax rekk ngir laabire waaye moom ci boppam dawul woote ak wilaaya dawul nangoo wedd itam wilaaya kenn kenn ndax loolu mooy teggiin bañ a wooteeg wilaaya te bañ a weddi wilaaya keneen waaye ndegam nag lii moom am na muy loobiri nag ñi ci kese yi ba buñ jógee ba wuti yàlla ñu bañ a gaawantu taylu ba àgg ci sëriñ boo xam ne sëriñ dëgg-dëgg la ndax ñu mën caa amee pajug aajo te tàmbalee wax nag sëriñ jamono joojee mu ne am na ci ñoo xam ne day dañuy bëgg kilifteef lool ba àgg ci di woote ak wilaaya di wax ne ñoom àgg nañ fa góoru yàlla di àgg su ko defee nag di nett li nett yu baree bari di jombal nit ñi te fekk nee na kooku kat la gën a tuuti ci doonub sëriñ sax jaaragu ca te mooy xàmmee farataak sunna xàmmee farataak sunna moom mënta ñàkk ci jullit bu ne rawante na nag ab sëriñ ku mel nii nag xàmmewul sax farataak sunna di wote wilayah di wax nu agge ci ca ak nu ci ca mën su ko defee rek dal di andi ay fitna yu bare bare ku mel ni nee na mu nangu nga tagg fi kanamam benen sëriñ nga xamni bo boo fi mom tagg benen sëriñ rek mu nakari ko lol ndax kañaan gu nek ci mom ak bëgg gum bëgg rek boo toogee fi moom nag xas beneen sëriñ moom da cay bëgg lool doonte sax ñëpp xam nañ ne kookee ngay xas moom am na mbaax gune bu ñëpp xaman loola du tee rek sëriñ bu mel ni moom boo ŋàññee ku mel noonu fi moom da cay bëgg moom daal du bëgg lu may moom rek lañuy tudd moom rek la ñuy tagg moom rek lañuy ñuy topp loolu dal rek a yitteem sëriñ bi mel nii nee ku wut ab sëriñ weesu ko fi mu dal likoy koy naqari lool jàpp ne moom daal kenn warta jog di wut ab sëriñ di ko fi weesu mu ne ku mel ni de xam nga ne ngir yàlla kese dafa koy bëgg ab taalibe ndax bu fekkon ne bëggul lu way nit ñi maneeg seen borom rek am ngërëmul yalla kon ku jóg teggi ko tam xam ne fee mu jëm mën na fa ami ngërëm rek xolam da cay sedd waaye du ci am aw naqar ndax ndegam moom taalibe bi rek la bëgg mu defaru te xam na ne fee mu jëm mën na faa defaroo kon na am lu koy naqari ci lu tax mu weesu ma fi dem ci keneen koo xam ne yàlla rek moom moo la soxal te jaamam ñi defaru rek mooy sa yitte kon ñoom jaam ñi fu ñu defaroo rek baax na ci yow doo faale kenn weesu la dem ci keneen ak ñëpp jëm si ci yow ñoom nga yemale képp ne màndarga yi mu la wax daal koo gis mu nekk ci moom te wax ne ab sëriñ la xamal ne kon du ab sëriñ àdduna lay wut